الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على الشيخ القديم نوي سنت الله تي سيرن توبا دي نوي سان بوك نيو بوكل سيرن توبا ييب دي لين زياره دي لين بالاق تي تو شيخ محمد المنتقى مي كو في توغال japp na ne jotaay murid bu meuna don nuyu ko ak siyaare ko ak ndokkeel ko lañ wara jëkke kon jotaay bi ak jotaay ab jotaay ma luñ fi waxi ci aw lañ koy wax na ma sax baña wax ndax sama mag ji di sëñ Abdul Asiis wax na fi kaddu yo xamna doyna doy te mat na te yobale na samay kaddu sëriñ Ahmad mii di sama dom mako on ngir bëggoon rek mu yor sama kàddu ci bis bii ndax xeeboon naa ci samay wax bëggoon mu waxal ma waaye nag sama bokki bopi dama leen xam bu ma ko gisee woon noonu wax ba noppi mu wax ma bàyyee te waxuma rek ngan gépp yàqu koki koki mom sun borom def na ci am du reey reey waye nañ nak leen sun borom defal bu baax kon nag ci turu sëñ xabbaan mi nga xam ne mooy sëñ kokki ma yàgg koo xam lool yàgg ànd ak moom ak Cheikh Mouhamadul Mourtada ay tukki waaye booba it sëñ Paal mii seere la ci lu yëf yi lëj lëj ak lu mu jaxasoo jaxasoo manqué lañ ko bàyyee woon rek alxuraan rek ku ne xam na ko ci loolu ku sëñ Murtada fonkoon la waaye ku fonkoon ndonoom la kon nag maa ngi koy delloo ab nuyoo ci turu bokkam yi ñëw teg ko ci loxol sëriñ Thierno moom sama xarit bu yàgg la fekk naa ko Abu Dhabi mu toppatoo ma lool dalal dalal ma <laughs> kon nag bu ma limee juum waaye bokk yëpp rek kenn ku ne nuyu naa la ci sa turu bopp ak sa santu bopp ni ko sëñ Xaadim waxee rek dafa mel ne kokki moom mucc ci dafa jafe boo nee kenn ku baax mucc ci am ñu la jàpp mu mel ne am naa lu kenn amul moom neexut a wax ci yenn jamono waaye jamono ji moo ci raw ndax waxkat yi ak firikat yi wax yi moo tax kokki du mën a wax loolu waaye daal am na lu ko doy loo xam ne ñëwut kenn na am na ko ci alxuraan am na ko ci Sëriñ Tuubaa kon nag man de sant naa yàlla bi ma yàlla boole ci ñoom ndax bokk yu baax moom ko koy woyofal da nga ko amul rek waaye ko am bokk yu baax da ko ndaboo da nga dégg sax gaa ay daanukat yoo xam ne dañ naan mbàkki mbàkki amul nijaay waaye ku am nijaay ju baax da ko wane da nga ko ndamoo kon nag nijaay maam ak i nijaay yu mbokk ci kokki ku ko am da nga koy tiitaroo da koy ndamoo da koy sant yi sëñ Tuubaa ndax lépp sëriñ bi sëriñ bi da leen loo xam ne séddu nañ daal séddu nañ bu ñu mënta wax ne séddu ko kenn nit sédd na leen lu doy sëkk loolee nag yàlla nay seen muur ngeen jariñoo ko waaye li am solo dëgg-dëgg mooy ndonali kenn ku ne def itim ci téye ndonali jàpp ne bu ëllëgee danga bokk ñi ko sëñ bii laaj rawatina ku bokk ci sëriñ bi te bokk ci kokki ndonali nag du dara lu weesu alxuraan alxuraan mii nga xam ne li fekk ñu ngi ciy teg suñ bët di bàyyi xel ndigali alxuraan di bàyyi xel tere alxuraan am noon du nu mënal dara ab tubaab du nu mënal dara adduna du nu mën a yóbbu kira tiraangay koki nak ak ndamul koki, ak titre bu koki dara da ci génnul alxuraan lépp alxuraan la kon nak nan dina fonka dara yi ko ca bok ak no ca meuna bokki na nga fexe ba taxawal dara boo ko mën taxawal sa bop nga set ko ko taxawal nga dimbale ko sa kem katan lo man bu ñepp ande jappale alquran rek yi ñi xex yépp dana fi jox damay jàpp ne sëriñ bi moom solution bi mu andi woon weesuwut alquran jàpp naa ne sax àdduna buy dox ba nëgë ni liggéeyub sëñ Tuubaa ci alquran moo nu waaye kon asamaan su fekki na suuf wala suuf fekki asamaan ndax yàq gi bari na tooñ gi bari na waaye yàlla rus na sëñ Tuubaa ci suñ jëmm yi te alquran rek a tax bu ko defee nag maa ngi soññi mboolem ku ma bokkal sëñ Tuubaa te yàlla dimbale la nga bokk ci sëriñ bi loolu moom kenn mënu ko wutal sa bopp tawfeex yàlla la waaye nag ba nga amee ay bokk yu mel ne bokk yii masalan te seen lépp di alxuraan na nga jokk bokk googu te la ngeen bokk ci bokk loo ca man ngir sëñ bi nga leen féete loo ca man nga def ko ci wax ak ci jëf ndax loolu rek lañ dese kàddu yi fi jógee yëpp boo ko seelo boo ko boolee lépp mooy wax ji rafet na waaye jëfe fi sëf jëfe fi sës bu ñu doon ba suba yi wax ji doo doo mën ne wax a ngi ci jaww ji ni ana wax doo ko mu ëw na ko ci jëf rek lañ mën ne mi ngi nii ñëpp teg ci bët kon nag ki mën a ki tëlee ku ne lam mën na koy génne di ko def ci daara alxuraan yooyu yii ci kokki lii ma ci barkeeloo ko su néew ab tàmbali la waaye fasuma yéene kenn man ci téeméeri junni yi waaye fas naa yéene at mu ne ma joxe ci li ma ci war a joxe lu mu néew néew mat loolu wala million loolu maa ngi koy ñaan ñi ma tolloon ñëpp ñu góorgóorlu ci jàppale kokki ba daara ji àgg kër ga àgg ñu jàpp ne suñu barab la waxtu wu ñu man fay dem di wéttalikoog ñoom di jokk bokk gi di safante ñoom bokk yu baaxee nii sëñ bi jàppee woon leen nii ku leen am dëgg leen di jàpp kon maa ngi ci soñ ñëpp kenn rek lañ ma sa gis muy sëñ Maxtaar lu muy sëñ bi joxañ ko ne borom jamono la loolu moom kenn mësu ko seen maam jigéen am kenn amu ko waxi sëñ bi dafa diis poids bu sëñ bi dafa diis bu ko xoolee ba di ko wax walla boog walla boog bu ma gisee keneen ku mu ko wax mooy sëñ Maxtaar si ayaa mambaxal ahkaami yaa awsa dillili ayaa xarmu yaa naamuusu yaa xutbu zel jiili waaye sëñ Maxtaar moom jamono jam taseel ñam taseeloon mooy seen sang boobu seede am ko ci sëñ bi yombut loolu nag ku ko am danga koy fonk bu baax xam ne li nga am kenn amu ko bu ko defee nag buñ ko ndamoo waaye nañ ko def ngànnaay te xam nag ne ku ci sëtoo ku ne am na fu ñu lay xool nag perkaal dafa war di wala daa lu ko taxal day yomb kon sëtu suñ mataar nay xool fu mu taxaw xam ne moo représenté suñ maxtaar ci lépp nag bu ne ca taax yaag bu ne bitim réew fu mënee ne na ba ñu ci moom buñ ko defee rek wàccoog moom te di ko ñaanal waxtu wu ne bu ko acci ne damaa demut kokki rek foo toog rek jàppal ne defal na la loo xam ne waxtu wu ne war nga koy fàttaliku di ko ñaanal jëmm ngi joo xam ne ku ko ñaanal Sëñ Tuubaa dina yëg ne ñaanal nga ko ndax ku ko fonkoon la te fonk gaa tax njabootam tasaaroo ci biir njabootam kon nag ne ñëpp àndandoo def benn boole seen bopp yenn buum wa atihu llaha wa rasulahu wala tanaazahu fa tafsalu wa tasxab riihukum li fa boolewuñ suñu bopp ba nekk benn duñ mën a def dara mu sotti tàqalikoo gi dañuy néewal doole rek mbooloo mi lu mu bari bari bu ñu àndul lu am benn njariñ kon nag nañ ànd te jumtuwaay xarala yi maye na mbooloo mën a tënku ci genn buum la ca des mooy nag mooy tëndiku dégg dégg dégg dégg naa di wax danga wala nag déedéet bul déglu kenn ku digg wax la bëgg laa wax ci mbokk ne taxal ma woo ko léegi wax ko mu jeex tàkk bul na yàq sa digg mbokk mukk ku yàq sa digg sa mbokk ma ànd ki bokkam kooku jot sax amatut ku dig bëgg wax lu dul aw yiw neeku nit ki ngay wax ka taxal moko ko nga deggalo loolu rek baax ci borom bañ ni ñu ak defal rek lañ bañ waaye bu leen may kenn dara am leen bay ben rek bay ben bu leen ci xajal kenn bu ko defee ne ngeen and doon kurus gu ñass ci ben genn buum doon nak kurusu sëñ touba gu muy wëdde lool la lay ñaanal ko ci gépp ak sëti Maam Matar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh